ci wéru tedd wu mag wi nga ci lañ nek di ñaan sunu borom li nga xam ne lañ ko ci namu jàmm mu nangul nuko li nga ne dal ci ay rek rek sunu borom jéggal nuko. kon mbokk yi ni ngeen ko xamé mu wafa bi xuquqil iman nim ko baxo amale ci wéru tedd wu mag wi bis bu nyo dalal ben borom xam-xam bo xamne dana andi ben tombe bo xamne dana ko jàngale mbokki julit yi man ko jariñoo bu baax kon tey e, ñu ngi dalal suñu benn mbokk moo xam ne ñu ngi koy wax sëriñ Mouhamed Diagne e, sëriñ Mouhamed jaañ moomu mi ngi ganee jamono Touba Touba gi ñu xam ca Touba googu it foofu lay tàmbalee njàngum alxuraanam ci benn daare alxuraan ju ñuy wax sëriñ Hasan loo ci daarul Minan fofé la tambalé eh, la tambalé jang jangalem Al jangum alxuraanam ginaaw bi it mu daari toxo toxu dem ci jenen daara ju ñuy wax jo xam fa la mottalee am jangam di serigne mustapha Diop fofé la jangé ba yalla sunu borom defal ko tawfiq ci alxuraan ji ginaaw bi nga xam nopi na ci téré bu tedd bobu nak di Al joju euh niko doomi soxna yi bax wa def rek bu ñu noppee ci alxuraan ji dañuy dem ci jangum diiné mi kon fofé ci touba gogé mu fekk baxit foofee la tàmbale njàngum diine ci daara ju mag jooju nga xam ne ñëpp xam nañ ko nga xam ne ay kilifa yu baree bari génne nañ ci daara jooju muy daara sëriñ Abibu Mbàkke mu mag moomu sëriñ Abibu Mbàkke imam nekkoon ci kër kër sëriñ Suhaybu foofee la sëriñ Mouhamed Diagne tàmbale njàngum diineem ginnaaw bi nag euh, yëmut foofa waaye dem na ci niñ ko baaxoo def rek di toxu ci barab yu bari ngir sàkku ngir gën a dolli kuwaat xam-xam demaat na ci jàngu kay bu mag bobu nek ci jumaay touba ji ñu koy kat bu mag bobu ñu wax serigne taranfa Mbay serigne bi dem na fofu momit it fa dara ci xam-xamu diini ginaaw bay demu fa jallat na ba ci serigne alxaaji jaxate serigne alxaaji mbàkki jaxate mi nga xamne xam nañ ko ci jumaay touba momit dem na fofu jànge fa lu bari ci xam-xamu diini naka non yit fofé nga fa la nekkon ci pencum sëñ Abib Mbàkke xam ne fa la tàmbalee njàngum diine mi foofee ci kër sëñ Sohaybu bi it jànge na fa lu bari ci xam-xam kon daal barab yooyu ci njàngum diine mi ak njàngum sare xam mi foofu la sëriñ Mouhamed Diagne tàmbalee jàng foofu ba borom defal ko ci ay yu bari ci njàngum diine mi ñu baaxoo jàng ci majalis yi ginnaaw ba nag yemut foofu waaye sëriñ bi dafa continué waat njàngale njàng mi mu baaxoo def daal di dem Dakar niñ ko xamee foofee mu dem ci benn école bu mag bo xam bi école bu siiw la bo xam dañ fay dem difa sakku xam-xam école bobu mi ngi ci école serigne tafsir ahmadou ba tafsir ahmadou ba ñu koy wax madrasatul ittihad bi nga xam Dakar la nek waye mu gëna a nak ci tafsir ahmadou ba école bobu serigne bi jang na fa ba am fa sahada asanawiya mu am amna fa bac ginaaw bi ko yalla sunu borom defale tawfiq mu am bac nak fofu waye dafa continuer wat am jang am jangam dem ci dëkk bu mag bobu nga xamne ne bu xam-xam la dëkk bu ñu xam muy al jamhuriyatil misr al arabia ya la dem amon na bak senegal da way bimu deme yemut ci bak bobu mu am senegal bimu deme demee jamihatul ashar bimu deme misra dafa wat ba amat fofu bak nga xamne kon serigne bi ñaari bak la am lol di lu am solo ginaaw ba nga xamne amna am fofu nak ci université bu mag bobu nek ashar fa la continuer nak Eh, ci jamihatul ashar bobu jang fa ba am fa licence ci kuliyatul adab wa tarbiya fofé la sëñ bi jangé ba am diplôme yu ginaaw bi nak euh na ci eh, bindu wat na ngir continuer am jangam ci khismu dara khismu al Islamia. manam continuer na am jangam ci ben département bo xamni ne ñu koy khismu al Islamia. ci jamia ci fofu ci ashar fofu ñu ko waxe non am fa nak ay diplôme yu yu wote ci université bobu am na diplôme bo xam bo xam bi at at tanmiya al basriya at tanmiya al basriya développement bo xam ci walu ci walu minni fi ci la jëm amena na fa yit ben diplôme bo xam ci walu informatique euh, fofu la ko jangé ak yenen ak yenen yu bari yo xamni yi fofé ci euh, la ko jangé ba am ba suru borom defal ko ci tawfiq Ah, moom nag ni ko xamee léegi euh, ab taalifkat la day bind ay téere maanaam day bind ay téere xam naa téere bii ma yor nii sama loxo sax moom moo ko bind yaakaar naa ne ñu bari am nañ ko wala ñu bari xam nañ ko moom téere bii mu ngi tudd euh, rihlatul hajji wal humra mu def ko nag ci ay euh, langue yoo xam ne yu wute la def na ko ci dañ ko bind ci maanaam loxo wolof boo xam ne ci loxo ci français lañ ko bind maanaam ci arab yi français lañ ko bind loxo boo xam ne loxo wolof ya la ak loxo boo xam ne loxo fulaanu ya fulaanu ya ku ne xam na ne yaatu na ci réew mi yaatu na it ci bitim réew ba ñu bari mën cee jariñu kon sëriñ bi da koo def noonu ngir jullit ñi ñu bari ñi nga xam ne dañoo wuti ay langue mën cee jariñu euh, sëriñ bi nag kon ni ma ko waxee léegi téere bi moo ko taalif waaye ci ni léegi ci am njàngam boo xoolee ci biir téere bi sax yeneen diplôme yoo xam ne yi continué na am ko euh, boo xoolee am na magistère ci usul diin ci xismu daxwa al islamiya bil jaamihatil amérikiya boo xam ne bi mi ngi ñu ngi ko ubbi woon mu nekk masra foofu it sëñ bi jàng na ba am diplôme naka noonu yemul foofu continué na di jàng it ci am magistère ci tarbiya mu mu mu mu mu mu mu def ko ci idaara at taxlimiya wa taxtit bil mahadil buhus wa dirasat al arabiya attabiha li jamiati duwal arabiya bil xaahira am na beneen ni ma ko waxee am na beneen diplôme boo xam ne mi ngi ko def ci wàllu euh, lu jëm ci wàllu jàng ak ni ñuy ak gëstu ak jang manam loxol arabiya ci université bobu bobu nga xamne mo nek khayra naka noonu it continuer ba am ijasa benen bu kawé bo xamne ci adab ak tarbiya la am ni ko waxe legi waxoon nako legi ci idara wa ta'lim ci khismu dirasat al islamiya xamna ko am téere bi dang ko gëna xam bu baax a baax sëriñ bi dal lolu buñ ko mën buñ ko doon mëna wax danaka moy ay wayam ci buñ ko doon teunk ci lu gatt xamna waxtu tax way ne bari na yor ni comme ni ko legi léegi moom moo ci hajj wal umrah mu def ko noonu mu ko waxee léegi ci luñ bind la ci loxol wolof yee boo xam ne ci français lañ ko bind ak loxol fulaan yee bi nga xam ne ay lang euh, ñi nga xam ne dañuy wax ci yeneen làkk yu gudd yoo xam ne ñoom ñoo ko ñoo kon daal sëriñ Mouhamed Diagne loolu mooy bu ñu doon tënk ay jaarwaayam ci lu gàtt di ko ñu ngi ko ñaanal bu baax di ko dalal bu baax ci jotaay bi di ñaan borom thème bi nga xam ne moom lañ koy jox mooy ramadan yu xallimu na ramadan daal naka lañ ci mën a jànge ay bind yoo xam ne ñun ñëpp dañ ci mën a jariñu yaakaar naa ne kon sëriñ bi ñi ngi lay sant bu baax ci teway bi ak mbokk yi nga àndal yëpp di ñaan sunu borom tam biñ la jox yàlla sunu borom defal la ci tawfiq ba anam gi nga xamne ne nañ ko ci yow sunu borom defal la ci tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwaanu illa ala zalimin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سن بسنتهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله القائل في محكم تنزيله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات من هدى وفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ونصلي ونسلم على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بوكي ني دغلو déglu تي جتاي بي اك ني ñi ñuy topp ci bitub jataay bi ñëpp ñoo نيو leen di nuyu nuyoob lislaam te mooy wa di len dokkel bu baax ci wéru màgg wi ñu daje nga xam ne mooy weer wi gën ci weer yi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawféex bañ jeexal ko ak jàmm te lépp luñ ci def muy ak jaamu yàlla yàlla nangul ñu ko te fulal ñu ko lépp lu ciy njuumte mbaa ay manki-manki yàlla jéggal ñu ko di nuyu bu baax a baax kilifa yi fi teew ñépp kenn ku nekk ñu ngi koy wàcce wàcc waayam di ko nuyu nuyu ba yell ca moom di nuyu itam sama xarit yi nga xam ñom la andal ñi joge ba Touba eh, serigne Abdul Qadir Lo sering Abdul Ahad Lo ak sama rak Abdul Baqa Diagne ñoo leen di nuyu di nuyu itam kilifa yi taxawal li di lañ ci ndokkel bu baax itam di rafetlu jotaay bi bu baax jotaay la bo yag nañ ko top depuis sax bañ nekké bitim rew di jang da nañ ko top mu jataay bu am am solo boo xam ne sunna xasana la boo xam ne yéena ko jëkk tàmbali ñu bari dinañ ci roy léegi loolu kon di loo xam ne ba tey dañ koy bind ci seen téere jëf ñaan yàlla yàlla dëgëral leen te gën leen yokk bu baax te àggale seeni mébét te yàlla nangu lépp ginnaaw nuyoo yi ak ziyaar yi comme ni ko sëriñ bi waxe tem bi nga xamne mom moom lañu tànnoon ngir waxtane ko ak suñu mbokk julit ngir nafarat ramadhanu ramadanu yuallimuna wéru koor daf ñuy jangal liñ jublu ci thème bobu moy waxtane ay bind ak ay njariñ yo xamne manes nako jariño ci wéru koor ndax abdulit dafa war lepp lu xew mu jele ci ak war bo jang alquran ay ci nekk di delo nit ñi ci ñuy xalaat di tag ñi am xel di tag ñi jëfëndiko seen xel di ngañ ñi jëfëndiko seen xel kenn xamut ay nuñ toll kon lu tane wëru wi di wëru koor nga xane moy wëru gën ci ak li ci am ci nga ne la chaque ne am ay durus ak ay fawaid ak ay xikam yo xamne yu mata taxaw la diko jàngat ben par ben yooye nak ci lañ bëgg jukki yenn insha allah taala kem luñu waxtu may wala bok kem luñ ci yàlla xamal yonente bi sallallahu alayhi wasallam da daan jox bind sahaba yi ci lépp lu xew amna hadith bo xamne al imam bukhari génne jële ko ci omar ibnu xataab mu bis dafa am jenn jigéen ju ñëw ci saxaaba yi ñu seen ko bi mu agsee rek fekk boobu ween yi mi ngi fees dell ak soow doomam nga tandi ko mu jël ko taf ko ci ab dënnam tàmbali di ko nàmpal yonente bi ci am njàngaleem nga xam ne lépp lu xew rek dajay joxe bind mu wax saxaaba yi ne leen waaw soxna see ndax jàpp ngeen ne mën naa jël xale doomam jee sànni ko ci safara ñu ne ko déedéet mu ne moo ne mën na ko de ñu ne ko waaw mën na ko de waaye du ko def mu daaj lu tax ñu ne ko ndax daal yërëm doom ji moo tax mu ne nag ni yàlla yërëme ab jaamam moo raw ni soxna see yërëme doomam ci foofu li ñu fi bëgg a wax mooy ni muy joxe bind ci lépp lu xew lépp lu xew mu joxe ca bind loolu moo tax mu wax ci benn xadis bu wér ne alxikmatu dalatul mumini xekk ma daal te moy lu am jariñ lu bax julit moko mom fu ko fek rek nako jël da ko réer julit mom lu bax da ko réer fu fek fekk kon na for lolou motax julit bi lépp lu xew mu war di ca ay leçon di ca jànge di ca waro balaa ñu dugg ci deug deug tomb bi daan def ben laytaay bu gatta gat bo xamne ci nga lu la aju xamna yag nañ ci jaar té ñu bari yag nañ ko dégg motax loolu duñ ko duñ ci guddal dañ tudd ñaar rek wala ñatt ci benn bi moy hadith bo xamné ne alimam ahmad nett nak ak nasa'i yi ko ci abu hurayra mu ne benn at wéru koor dafa téro yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxtaane sahaba yi war leen ne leen weer wu màgg da na leen wer wo xamne ne dong la yalla faratal ci yeen ngeen diko wor moy wer wi nek farata ngeen diko wor weer wi nga xam ne ci la yàlla di ubbi bunti àjjana di ci tëj bunti sawara di ci jéng soytaane ci biir weeroo am na ci guddi goo xam ne moo gën junni weer daan na ku sàggan nag bañ xañ la yiw woowee nekk ca guddi goo googee xamal ne xañ la ne yiw wu rëy loola day wane ngëneelul weer wi am na itam beneen xadis boo xam ne damay wax jamono ju nek ne man bokku na ci hadith yi ma jàpp ne mo gëna a ci luy wane ngeenelul wër koor hadith yi wane ngeenelul wër koor bari na waye bi mom jàpp na na bokku na ci hadith yi gëna a yi gëna for hadith bi Ibn majah nek na ko ci sunan Ibn hibban nek nekk na ko ci sahih imam Ahmad tam nek na ko ci al musnad Ibn abd al Bari tam juddu na ko ci at tamhid ñu jël ko ci benn saxaabi bu ñu wax talhatum nu ubaydillah talha nee na dafa am ñaari góor yu dugg ci lislaam duggandoo ci lislaam ci benn bis ab xare jot xare ci yoonu yàlla ñu ànd dem ci xare ba di xare fekk biñ ñu duggee ci lislaam am na ci koo xam ne moo gënoon a farlu ki ci des kenn ki moo gën a farlu lool ci jaamu yàlla ki ci des yàlla ko ba ñu ma ci xare ba kooka gënoon a farlu ñu rey ko ca xare ba Talxa nee na ay fan yu néew ma tëdd di nelaw gént gis leen ñu taxaw buntu aljanna am ku génne aljanna ñëw daal ne daal di woo ki nga xam ne moom moo gënoon néew ak falu te sax faatuwut ci xare moom daal koy woo ne ko kaay dugg aljanna ba mu duggee ba noppi mu ñëwaat doo ko woo na ki nga xam ne moom moo ngi noonu farlu ba noppi itam faatu ci yoon yàlla boole ci na ko yow kaay dugg aljanna talxa neen loolu jaaxal ma loolu ma xëy nettali ko saxaaba yi saxaaba yi di ko ruumandaat ba yonente bi sallallahu alayhi dégg ko daal laaj loolu nu mu demee ñu wax ko ko mu ne lu ngeen ci yéem ñu ne ko li ñu yéem moom mooy kii moo gënoon a farlu ci jaamu yàlla te itam dafa faatu ci yoonu yàlla kee nag moom Fatu ci yoon yalla tay te kee gënoon farlu léegi lu mu njëkk aja dugg àjjana ki farlo. a farlu loolu moo jaaxal yonente bi ne leen ku farlu ko bam faato ki ci dess ndax dundaan na fi ay Abdir ñu ne ko waaw mu ne fekke ne weeru koor ñu ne ko waaw mu ne taw woor na taan julli ñu ne ko waaw mu ne ñoom ñaar day seen daraje ni ñu solé mi ngi melni ni penku sore ak soow fofu day jangale ne kon faatu ci yoon yàlla li muy am am valeur ak li muy baax baax fekkee weeru koor dundal ko taxawee ko moo ko gën a baax loolu lañ ci jànge te xadis boobu xadis la bu wér ngëneel yooyu nekk ci weer wi moo tax ba asalafu saaleh daan bari luy ñaan yàlla daan ko allahuma balligh na ramadan abdullah ibnu omar wala sa omar ibnu khattab bu wer ko ñew day wax marhaban bi mutahhirina min az-zunub ñong ndokel di dalal di tatagal ki nga xane mo moo ñuy dan ci ay bakar sahaba yi dañ dan jongante ci weeru koor di xol kan mo dàq nafila guddigi kan mo gëna a ay rakka kan mo ëpple alquran jum jang kan mo ëpp lum saraxé kan mo ëpp lu ndogol ay nit dañ ci daan jongante ci wéru koor ndax wéru tanafus la wéro musabaqa la wéro ndekante ci yoon eh, ci ci yiw ak fayam la al imam malik jangale rek la daan liggéey way wéro ko masaan ñëw wax nañ fay dafay da fay wax ne do ngay nañ ma jéggal ndax wéro koor mom da koy wéet di jàng alquran di julli di tuddu yalla di sarxé yoy rek la koy la koy passé ba wéro koor bi jeex nga wéro koor mom da koy bër ngir rek fas jaamu yalla kon weeru ko weer la woo xam ne dafa mel ne que kuy tukki yor oto dem ba toll ci benn essence eh, eh, station wala jël gasoil wala jël essance pour continuer ab tukkeem ndax xam nga nit ki dund gi mu dund ci àdduna ci ay jaaruwaay yu baree bari lay jaar jaaruwaay bu nekk nag day laaj mu am ab yóbbal weeru koor nag di ab yóbbal ci yóbbal yooyu nga xam ne jullit daf koy yóbbaloo weer la woo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na jibril ñëwal na ma ne ma waxal amin mën ne amin mu ne sa borom nee na képp koo xam ne fekkee ne weeru koor ba mu jeex mu sàggan ba jégaluñ ko ay bàkkaaram koo koy day perte na waxal amin nee na mën a amin loolu nag xadis la moo xam ne mbégte la ci ñenn ñi waaye itam tiitaange la ci ñeneen ñi ndax da nga ciy dégg ne nit ki mën naa amee ak njéggal ci weeru koor waaye da nga ciy dégg da nga ciy dégg it ne nit ki mën naa fekk weeru koor ba mu jeex te du ci amee njéggal ndax loolu la ko wax ku fekkee weeru koor ba mu jeex te jéggaluñ ko ay bàkkaaram kooku perte na kon am na ñoo xam dañ koy fekkee ndeke te duñ la njéggal loolu motax bu wer wi ñewé ay ngëneelam di mata fatali ndax ñu gën cee bàyyi xel ndax occasion la bo xamné bu rawé rek jàll na déwénati kon mu am ay bind yu bare bare yo xamné wer wi lambonako ndax wer wi buñ faté ne yàlla moko digle te yàlla moom dafa bok ci ay turam al hakim al hakim moy ko xamné mom lépp lu muy def xamna nan la koy defé ak kañ la koy def ak fan la koy def moom du tandu yàlla du tandaatu lépp lu mu def am na lu tax mu def ko am nay njariñ yu ci nekk moo xam xam nañ ko moo xam xamuñu ko loolu moo tax lépp loo gis yàlla diglu ko rek bay boo ko jàngat tax na boo koy jàngat rek dig si ay njariñ alxakim borom xam-xam yi luxa yi dañuy wax ne ñu ngi ko jële ci alxukmu wala alxikma ñaar yëpp alxukm mooy atte ma mooy ay secret lu am njariñ te ko ne xam na yàlla moom mu xukmu da atte yim tëral itam mooy atte yi gën a rafet yi gën a jaar yoon amul benn atte bu mu tëral lu dul ne am na ay njariñ yu ca nekk moo xam xam nañ ko moo xam xamuñu ko bu ñu bëggee jàngat kon bind yi ñuy weeru koor di jàngal bind ba ca jiitu dañ cay xamee valeur walla importance su ragal yàlla loolu weeru koor dañu koy jàngal ndax day mel ne sax ñun ñu am ragal yàlla mooy al al asasi maanaam mooy objectif principal bi nga xam ne moo tax yàlla digal ñu koor day mel ne koor daal yàlla dañu koo digal ngir ñu am le diplôme boobu muy ragal yàlla ndax la nga la ko tattaqun la wax te ak taqwa muy ragal yàlla daanaka jaamu yàlla yépp sax moom mooy meññeen mi jaamu yàlla yépp bu fekkonte ne garab la taqwa boobu moom mooy doom ya cay sax ñu mën koo jëfandikoo koor nag di loo xam ne dafay jural nit ki mu am ragal yàlla googu te loolu dafay valoriser ragal yàlla dafay wane ahamiya ak makane bi rek la yàlla am ci xolu nit ki ragal yàlla borom xam-xam yi firi ko ay fir yu bari bi ci gëna a siiw mooy jëfe ndigalul yàlla bàyyi ay tereem waye amna ben benn taarif boo xam Ubay ibn Kaab moko def bo xamne ne taarif bu am am solo ci ragal yàlla Omar ibn khattab bis bam laaje Ubay nako lan moy ragal yàlla ubay dana ko yow omar ndax mas nga jaar ci mbedd mu am ay xaxam ak ay dekk mu ne ko waaw mu ne ko bang fa jaaré no def mu ne ko xana wok sama yéré ak golu bu baax farlu ba xaxam duma tak dekk duma jam ubay na ko loolu mooy ragal yalla kon ku nek ci aduna jappal na da nga melni ku nek ci àll bo xamne ay dekk ak ay xaxam ño fa nek pour nga mucc ci nak ragal yàlla moy làmp bi leen niital ba nga mucc ci al imam ali ibn abi talib tam xamle nako mom bi mi xamle ragal yàlla dafa ne moy al khawf min al jalil wal amal bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dad li yamir rraxil mooy daal ragal yàlla mu màgg mi tey jëfe li ci alquran te doy loolu néew ba noppi di waajal bis pecc li tax ragal yàlla am solo ba tax jaamu yàlla gu ñu yàlla digal rek gàll ko ci moom mooy ragal yàlla moo mën a defar xolu nit moom mooy tere nit ki ba du fenn mom moy tax ba nit ki du rambaaj moy tax itam ba nit ki du jëw mbokum julitam moy tax itam ba nit ki du sacc mo tax itam ba nit ki du lor mbokum nitam moy tax itam ba nit ki nek amin nek ko am kóolute ci buy jëflante ay mbokki nitam waaye ragal yalla moy tax ba kenn du iñana kenn kenn du soxare kenn Ken du nangou la ger ta xam ngeen yi ñu wax yépp ay crime la yo xamne yu mag la ay jarima la yu mag yo xamne musiba yi bare bare lay jur ci aduna ak ci alakhirah kon buñ nee ragal yalla moy musla ci yi day wane kon loola lu reey la kep ko seen ñukay ger muy nangou rek xamal ne manki nak ragal yalla kep kuy wax di wax lu amut xamale manqué ne ragal yàlla képp ko kuy iñaane mbokkum mbokkum jullitam mu am xéewal mu iñaane ko ko mbaa bëgg mu am musiba mu yéene ko ko rek xamal ne ragal yàlla manqué na ko ndax jullit du soxor ak mbooleem ñaawteef yi ñu wax léegi yàlla nag importance boobu la xam importance boobu la xam moo tax jaamu yàlla yi baree bari mu lëkkale ko ak ragal yàlla lolou motax sax ba benn way kat bi mi wax naan kep ku fexe ba bàyyi moy yi dana am ay ngeenel baatub saw la jëfandikoo ba day kon ñi nga wane kon relation bi koor am ak ragal yàlla ndax wa kullu man sama anil anir raza'il la wax fa innahu yaftiru bil fadail keneen wax na ne iza ma iza mal maru sama anid danaya fa kullu shuhuruhu shahru siyaami nik say saa ci ay ñaawteef rek day melne wéram yépp koor la ndax koor moom loolu dong tax yalla diggal bonbon ko moo ñu am ragal yalla kon ki bayyi ay ay ñaawteef ak ay bon bon diirub bis yi diirub weer yi day melne ay bu mom mi ngi wor am gum am solo mom taqwallaahi moomu moo ba yalla nekkal ko ak julli wa qad aflahal mu'minun alladina hum fi solatihim xaashiun gis nga alxushuc ñëw na foofu mooy ragal yàlla ñëw na foofu kon lëkkal na ko julli lëkkale na ko ak julli ba tey itam bi muy di wax naan julli dafay tere nit ki muy def lu ñaaw ak lu bon loolu kon mooy signifier ragal yàlla ndax nit ki am ragal yàlla rek mooy bàyyi yu ñaaw ak yu bon kon inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar da fay firndel ba legi relation bi am digeunte ragal yàlla ak julli julli bi war a xel kon buy buy julli la tax ñu digel ko mu julli deug deug deug moy mu meuna am ragal yàlla ndax moy samara bi moy meññan mi asaka itam yàlla lëkkale ko lëkkale nako ak ragal yàlla wa rahmati wasiat kull shay fa sa lil lilladina yattaqun wa yutuna zakah. yalla len sama yermane yatuna pour ñepp waye ñima ma ko jagleel nak moy ñi ragal yalla ba nopi di genné azaka kon gis nga bata yalla yàlla na foofu ragal yalla ak azaka ragal yalla mi nga xam mom lañu koor di jangal ak azaka batay bu dee ci hajma kaytam daf na ngeen yobalu te yobal bi gën ci yobal yi nak moy ragal yalla wa fa in khayr zati taqwa ba ci sax suñu jëflanté ci suñu biir daf ñu ci digal ñu ragal yàlla ragal yàlla solo ci motax ba yàlla digaloon ko mbolam yonent yi mu yónni yépp yaa ayuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu saaliha inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fattaqun gis nga balé kon lëkkale na ndigalul yàlla bimu jéxal nak mu xamal ni may seen borom te li war sama digënté ak yéen moy ngeen ragal ma ne jàkk yonante bi nga xam ne moo la mujj yónni ne ko ayyuhan nabi ittaqillah mbolam julli itam mu digal len ko ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu maa sadiqin kon digal nako ko yonante yi nga xam ñoo gëna for gëna mag a ñëpp digal ko ki nga xam ne mooy seen jiit di muhammad sallallahu alayhi wa sallam digal ko itam mboolem jullit yépp li tax mu leen koy digal moom mooy jaamu yàlla yi ñuy def nga xam ne moo tax yàlla bind ñu jaamu yàlla yooyu yépp bu nit amul rek yàlla du ko nangu ndax yàlla moo ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin gis nga foofu innama la jëfandikoo day melni innama bu ni ko ci arab ñun ñëpp bu ko arab waxé moy lamuy wax dong dong la jublu moy leneen bokut te yalla defna ne innama yataqabbalu la yalla ñi muy nangul ñi dong la muttaqun al muttaqun lol nak julit bu ko jang war ngaa gëstuwaat bu baakha nan lay def ba am ragal yalla boobu ndax yow yàlla dalaa njëkk wax ne dama laa bind ngir nga jaamu ma nga ne waaw mu ne jaamu googu nag pour mu nangu ko benn charte rek moo mën a am mooy mu ànd ak ragal yàlla loolu moo tax ba borom xam-xam yu bari sax dañ koy lëkkale ak al ixlaas am na sax ñu jàpp benn la taqwa la ak ixlaas am na jàpp ne sax benn la waaye bu ñu benn itam nuróo nañu jege nañu waaye nañ xam ne moom mooy ruuxul amal moom mooy ruuxul ibaadaat moom mooy samaratul ibaadaat loolu moo tax ba yonent yi yàlla yónni woon ci seenu nit lañ daan digal seenu nit mooy ñu ragal yàlla moo tax ci alxuraan ngay jàng yonent yi bari bu ñuy wax ak nit ba yàgg fa ñuy jeexale mooy afala tattaquun ala tattaquun fattaqullaha wa atiun yooyu la ñuy digle ndax xam nañ ne loolu mooy résultat bi am solo boo xam ne bu ci jàmb eggagul rek la muy def mën naa am amagul njariñ li tax ragal yàlla am solo mooy ki ragal yàlla du parparloo ngir am mazhab bay àgg fenn fi du parparloo itam ngir ab tariqa bay àgg fenn fi parce que kooku suy défendre mbaa muy layal lam nekk mbaa muy wax mbaa muy woo nit ci lim nekk da koy defee ak xikma laytaayal ko ragal yàlla nga xam ne li ko yitteel mooy kii jariñu jàpp ne daal lim nekk lu baax la ma bëgg cee woo keneen waaye di taasub li saalihi taifatin muayyana aw li tariqatin muayyana loolu dafa wuute ak ku ragal ak ak ak jëfi ragal yàlla dafa wuute ak jëfi ragal yàlla borom xam-xam yi ñu jiitu woon ñoo gënoon a wuute daanaka masala boo jël wuute nañ ca waaye fii ñu àgg ñun suñ jamono jii wuuteeg nit ci masala ba boo ko rombee doo ko nuyu wuuteeg nit ci masala ci diina ba di ko saaga maa ngi ŋàññi ay waajuram maa ngi ngàññ ab sëriñam loola moom yàlla taxatut imaam Shaafi'i daan wax ne man day musuma weranteeg nit mukk ci masala lu dul ne la ma yitteel mooy na dëgg ko feeñ rek moo xam ci man lay jógee moo xam ci moom lay jógee te sax su ma sañoon même bu jógee ci man du ma xam ne ci man la jóge téere yi mu bind sax danañ wax ne su ma sañoon téere nit ñi jariñoo te ñu xam ne sax ko bind imaam Shafii foofu la jullit bi war a àgg ci ragal yàlla te mooy sellal ay jëfam ci lépp lu muy def ngir jëm yàlla subhaanahu wa taala ki ragal yàlla du jëfandikoo pouvoir di exploiter koom-koomu réew ngir ak njabootam baa ñu koy dimbali kese waaye itam ku ragal yàlla du def lenn loo xam dafay lor am mbokkam ngir moom mu jariñu yooyu yépp kon la tax muy am mooy ñàkk diplôme boobu nga xam ne moom lañu yàlla bëggal ci weeru koor ba tax mu digal ñu koor ak ni mu mettee koor ak ni mu mettee yàlla dama leen ko digal ngir nga am benn diplôme te moy dimbalam bi taqwa Allah, yalla dafa xam importance bi motax ndax xam na bu ñepp ragal yalla rek jam rek ay am ci aduna bi kenn du soxore kenn kenn du bañ kenn kenn du lor kenn ñëpp ay jariñante ñëpp ay bëggante te kenn sagan ci ci jam yalla da nga la ko mom moy sababu texe yalla wax nako wattaqullaha laallakum tuflihun kon gis nga ci laayab koor daf ne moom dee leen woor la'allakum tattaqoon ndax ngeen ragal yàlla fii nag mu ne moom na ngeen ragal yàlla ndax ngeen texe kon day mel ne mbir mi escalier la ab escalier la booy jaar mooy da ngay woor mën a àgg ci ragal yàlla boo ragal yàlla nag doog àgg ci ci texe ni ñu koor di jàngale importance ragal yàlla mooy koor dafa metti koor moom ci ñepp la met ki sant ñanga ki sant faala ci yam ak sant ja ñepp ñepp la met da ngay xey bàyyi lek bàyyi naan bàyyi yu bari suba ba ngoon lool lepp nak len rek tax nga def ko moy bëgg lool ñuy wax ragal yàlla kon war ngaa xool loolu moom mooy lan même bu weeru koor jàllee ko wan nga li ba baxam wa ragal yalla mii mom ndax mënu ko amee ci fudut koor hakay amna kay amna yenen yo yoo am rek yàlla yudut koor bu ko def nga jéem gorgol ci yoyal kon koor dalay lolo, lolo lolo moy bindi bu ñëk bo xamne sa ko jangé ci koor moy importance ak solos ragal yalla ci julit bi ñaareelu bindi boo xam ne da si koy jàngee ci wéru koor waccu wayu selal suñu jëf ngir yalla kese bañ ko bañ ci bokalé ak kenn ki dafay bàyyi ay bànneex yu bari te nag daanaka kenn forcé ko ko nag mën naa wéet di ko def te kenn du ko xam waaye mu bàyyi ko ngir jëm yàlla koor kon dafay yar nit ki ci muy sellal ay jëfam ngir jëm yàlla dafay yar bakkan ci muy sellal lépp lu muy def ngir jëm yàlla subhanahu wa ndax ki wor lu mu wéet lu tax mu nan ba mu lek ndax xamne yàlla mi ngi koy baye xel te bu lekke ba mu nan rek ñak na te ikhlas momu nak ikhlas momu waxon nañ legi na taqwa mom moy samaratul ibadat waye ikhlas mom mom moy ruh gi mom itam yàlla bimu ñu koy digal mom tam dafa jëfandikoo xarfu has wa ma umiru la wax digaluma len len len lu dul lii ba tey xas la jëfandikoo fofu illa liya'budullaha mukhlisin ngeen a jàmm yàlla ba noppi di ko sellal sellal day lu ama am solo bari waa ne kuy jëf jëf ju rëy ñu di ko yéem te fekk tulul nenn fa yàlla ndax ñàkk sellal moo am ci jëf ja te loolu li koy firndeel mooy xadis boo xam ne imaam muslim génnee na ko ci saxiix jële ko ci abu hurayra di daanu yalla noko waye ba ngay jang man taxuma won da nga jangon ngir ñu ne sa bat bu neex bi mba sa rafet ji kon yow amu fi ak fay daana malaaka yi ñoddi leen ko yobu safara wal xiyaasu billahi taala lol mi ngi muslim ci doon sarxe itam ne yalla fay ma yalla nako lo def mu nako ko dama naan sarxe ba ñepp Girman. ko mu ne ko wo ngir man dimbali wo kenn ngir man da nga lan joxe kay ngir bëgg bo rombé ci koñ bi ñu doy am fuñ lay tek dila sukkal dila ramal dila tag dila jay ak bëgg ñu naan diwa mëna joxé rek mo tax ngay def ay taxuma won daal malaaka ñen yóbbu safara loolu daf ñu jangal kon ne jaamu yalla yi gëna a ci jaamu yalla muy dé ci yoonu yalla ak jang alquran ak sarxé ndekk nit ki mën na koy def te tax bu ëllëgé mu am ci ak fay loolu nak ku ko xam war ngay def attention bu baaxa baax ci li ngay def kon koor gi bul japp ne ak mar rek la ba déedéet am na beneen xadis bi firndeel loolu di wane ne kat rubba saimin wa laysa lahu min sawmihi illa al juu'a wal atash woorkat boo xam ne du am ca koor ga ëllëg dara lu dul xiif ak mar ba ñu ko sëñ Tuubaa waxee ci Masaalikul Jinaan fa rubba saimin ma al jamaa laysa lahu fiihi siwal majaa xiif dong la cay am ndax la tax mooy dafa manqué ragal yàlla Eh, nitu yalla bu mag bu ñu abdullahi tustari dañ ko mësa laaj ne ko lan moy li gëna metti ci bakkan mune ragal yalla mune mune ikhlas selal selal sa jëf ba yalla dong dong tax loolu moy li gëna diis ci bakkan ndax neena laysa laha fiha nasib Mui bakkan mom amu ben intérêt ci selal bakkan mom lim bëgg mom moy nay siiw nañ nañ koy wax nañ koy loolu bakkan bëgg moo tax mu ne li gën a diis ci bakkan gën a metti ci moom mooy sellal say jëf ngir jëm yàlla kese ndax bakkan amu ci intérêt moo tax am na xadis boo xam ne imaam ahmad ibnu hanbal génn na ko ci musnad ak abu daawuda ci sunan ak an ba tey ci sunan jël ko ci saxaabi yi bu ñu wax ammaar ibnu yaasir mu ne dégg naa ci yonte bi sallallahu alayhi mu ne ab jaam day dana jullil yàlla wala boog dana julli julli go xamne duñ ko ci bindal sax genn walu li fay ko julli duñ ko ci bindal sax ceerub la fay ko julli duñ ko ci bindal sax juromelu xaj duñ ko ci bindal sax juróom dem ba duñ ko ci bindal sax fukelu julli fukelu xaj ci julli manam julli gal ba deug deug lañ koy fay mom buñ ko xajal fukki yoon benn ba sax duñ ko ko fay mom kon gis nga julli gi ñu waxoon léegi ne tanha anil fahsha'i wal munkar nek nit ki mën ko def ba noppi itam du ko amul benn njariñ lutax ndax dafa amul al ixlaas dafa amul al ixlaas ixlaas ab safaanam moom mooy njistal saa yu amul rek moom ixlaas saa yu amul rek njistal moom mooy dugg te moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam tuddee woon ashirkul xafi muy bokkaale yàlla gu nëbb jëlee nañ ci abi saïd al xudri xadis boo xam ne ahmad nettali na ko mu ne yonente bi sallallahu alayhi nee na man day nekkut ne masiixu dajjaal moom laa gën a ragal ci yéen sama ginnaaw déedéet ànd ak nag lu danger la moom masiixu dajjaal lu doy waar la te man sànq ay nit waaye nekkut ne moom laa gën a ragal sama ginnaaw ci yéen daal ne li ma gën a ragal sama ginnaaw ci yéen mooy ashirkul xafi mooy bokkaale yàlla gu nëbbu bokkaale yàlla gu ndaw saxaaba yi ne ko lan mooy bokkaal yàlla gu ndaw mu ne benn waay ci yéen day jóg di julli di rafetal ak julleem ngir nit ñi koy gis am na ñoo xam ne bu ñu julli nañuy dale ak nañ koy teeloo ak nañ koy benn benn la ak nañ koy yàggale nit ña fa nekk rek a tax waaye bu bu ñu wéete di julli moom daanaka dañuy mel ne ginaar koy cof rek bi jàngale ci salaam dañuy mel ne ginaar koy cof rek xam nga ne loolu taxul ñu wax julli moo tax mu ne li ma gën ragal ci yéen moom mooy bokkaale yàlla gu nëbb te mooy di jëf ay jëf yoo xam ne yàlla taxut kon julli la tudd rek moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bay boo nga jàpp ne jàmm yàlla yépp lu ci nit mën a def te ba nga koy def mu cee bàyyi xel nit ña nga xam ne xay na ma ngi koy rafetal ak taaral ngir nit ña xamal ne njëstal dugg na moo xam day woor moo xam day sarxe moo xam day def ci yoon yàlla lu mën a xew ba ñu sal duggee rek yàlla moom génn na ca jëf ja kon koor dañu jàngal ne ni ngay woore toog ak ay nit kenn du xam ne danga ngaa woor ba tey itam boo dimbalee ay nit ci yoonu yàlla def sa alal ci yoonu yàlla kenn waru koo xam yonte ba muy lim juróom-ñaar ñi nga xam ne yoom la xam dañ leen ni keral ca arash def ne bokk na ca koo xam ne ba muy saraxe ndeyjooram bi moko joxe te tamam bi sax yeguko ko mana la neub meuna yam julit bi kon lepp lu muy def non la war def kenn kenn kenn wuro ci amu yoon bu fekke yalla tax muy def kon boy julli ko dalay jangal jàngal ne la ni ngay bo wo rek ba kenn du ko xam boy julli tam nono bu ci ko lu yalla boy jang alquran tam noonu boy aji kay tam bul aji ngir bëgg turu allah jimba bëgg ñu ne ki da am nangam aji rek ngir jëm yalla boy jëf sa alal ci yoonu yàlla itam def ko ngir jëm yalla sellal ajuwul rek ci jàmm yàlla yi waaye même suñ jëf yi sax jëfi adduna yi sax liggéey booy liggéey sax dañ caa war a sellal yamale bu mbooloo nekkee ngay liggéey ak bu boo fa nekkee yow dong yamale fi nga nekk nga nekk fi yow kese ak bu fa monté ay caméra yoo xam ne ñu ngi lay surveiller ñu lay xool ko war a yamale def sa liggéey na ko war a defee bu dee jaamu yàlla tam nga def ko nanga ko war a defee te bàyyi xel ne yàlla mi ngi lay gis in lam takun tarahu fa innahu yaraak loolu ku koy bàyyi xel dana dimbali ci bu baax ngay sellal say jëf ak say wax ngir jëm yàlla subhanahu wa taala kon koor dañu jàngal njariñul sellal ndax da ngay woor kenn du ko xam nga mën a wéet lekk kenn du ko xam mën a wéet naan kenn du ko xam waaye nga bàyyi ko ngir jëm yàlla li fekk difoo ko li fekk difoo ko euh, koor gu mel ne koorug waa ji sadd ñang ko fekkee muy julli di sëlmal rek di julli di sëlmal ñu ne ah waaye yow sëñ bi baax nga di yaa ngi julli rek de mu ne moo ne dama cee boole koor de bu fekkee defoo noonu rek nga def ko ci mboolem jaamu yàlla yépp man ngaa am yaakaar ci ne yàlla dina ko nangu waaye nga bàyyi xel ne gépp jaamu yàlla gooy def charte ba tax yàlla di ko nangu moom mooy ginnaaw bu dëppook alquran ak sunna ba noppi nga sellal ko wa maa umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu diin ñetteelu bind bi nga xam ne koor dañu koy jàngal mooy koor dañuy jàngal ne ñun kat ndeke am nañ benn force bu nekk suñ biir benn quwwa daaxiliya boo xam ne ndeke luñ jéem man ko luñ bëgg a bàyyi bàyyi ko ñu bëgg a def def ko ndax noonu bi gën a màgg muy bakkan ak bànneex ñun ci koor moom la ñuy xeexal ndax dañuy woor bàyyi lekk ànd ak na dañuy gis ñam yu neex waaye duñ ko ñemee laal di bàyyi naan gis ay naan yu neex yu sedd waaye duñ ko ñemee naan ak lum tàng-tàng ak lum mbóoya mbóoya kon ni nga bàyyee yooyu koor dalee jàngal ne yow kat ndeke loo def yaa ko tey te itam loo mun mënta bàyyi amut su ko defee ki nga xam ne yàlla ko nattoo woon muy tox nga xam ne mënu koo baax jàpp ne munu koo ba koor dina na ko kaa mën nga koo baax ndax weeru koor ngi bëccëg doo tox kon boo ci jéemoon tàggatoo jéem koo ba di nga ko bàyyi léegi nga bàyyi ko ki yàlla na tooy itam muy naan sàngara ba chronique ci itam noonu kii jëfandikoo itam am ñollu mbaa yuñ tere moom it noonu buy tàggatu rek jéem koo bàyyi rek xeex ak bakkanam dina ko baax ki nga xam te ne dafay nelaw ba fajar jot ba bët set te du yeewu julli suba moom it noonu koor da koy jàngal ne kat na nga bàyyee lekk ak naan ci weeru koor tàggat sa bopp ba mën koo muñ xëy ba ngoon sa xel du ci dem boo jéemoon tàggat sa bopp noonu da nga yeewu fajar di julli ci ki nay itam ba du def ab dërëmam ci yoonu yàlla koor na ko ni nga xeex ak lekk ak naan ngaa xeex ak sa nay gii bay dépense ci yoonu yàlla ki gaaw a mer noonu ki bëgg ko ko tagg noonu ba ci sax góor gi am ñaari soxna te yamalewu leen sax nga xam ne bakkanam dong la topp ba yamalewu soxna yi sax koor da koy jàngal ne ko soo leen jéemoon a yamale ragal yàlla delu ci sam xel ding ko man ndax baye nga li gëna a jafe baye lek ak lekk ak jaxso ak say soxna dirub wër ki nga xam tam moom yalla ko natou muy seetaan ay film yu baxut ba nit ci momit su ko jéemoon a bàyyi dana ko baax ki iñaan nonu ki soxore tam nonu kon koor dañu jangal importance jihadun nafs te xex ak bakkan ndax bakkan mom nako al Albusayri waxe won rek soko baye day fetal di wéy rek waye nak soko ko mom mu freiné wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaai wa in taftimhu yanfatimi sokay feral rek muy fer te lol koor dal koy jàngal ko dal koy jàngal ta bakkan momu nak dafa mata xexal lol ndax ñeenti non yi gëna a mag yi alak nit ki bok ci li gëna mëna yóbbu nit ki safara wala hiyaz billah gën ko mëna waral mbugulum yàlla bakkan mom da ca bok motax ben benn neena tawaqqa nafsaka la taman gawa ilaha ndax fa nafsu akhbathu min 70 shaytana bakkan dafa yées mo yées sax juróom-ñaar fukki shaytane ndax dafa dëkk ak yow amna wax ju siiw sax yoo xamne ñen dañ koy tudde xadis te du xadis mooy aada aduwika adu allazi bayna jan bayka ñu ngi askan yonent bi waaye li gën a wér mooy yonent bi sax waxu ko waaye lu mën a xew mooy maanaam moom dëgg la gën a nekk sab noon mooy noon bi ci sa biir te mooy sa bakkan lu mën a alag nit ki la koor nag bi lay jàngal ne ni nga xeex moom ci biir weeru koor daal bu weeru koor jàllee itam boo góor góorgóorlu woon xeex moom ci dindi say bon bon léegi mu set te xeex bakkan daa bokk ci tàbbal nit ki aljanna wa amma man xaafa maqaama rabbihi loolu rek doyut waaye wa nahan nafsa anil hawa waaw kay nga doog a am àjjana feneen jannati hiyal ma'wa loolu moo tax abu bakrin siddiq biñ ñu fi waaj jóge muy dénk omar ibnu xataab def na ko li ma lay njëkk a njëkk a njëkk a moytandikuloo en tant que chef d'état en tant que njiit en tant que kilifa guy jiite li ma lay njëkk a njëkk a moytandikuloo mooy sa bakkan sa bakkan loolu ku dellu ci jaami ulowul xikam da nga ko ci fekk loolu moo tax ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dénk waxambaane yi bëgg ñu xeex seen bakkan ba duñ mooy yàlla mooy yàlla gu jëm ci mbirum sëy mu digg leen koor man istataa minkum al baata falyatazawaj kon foofu da nga fi gis ba léegi relation bi am diggante woor ak xeex ak bakkan ku ragal ne daal mënoo téye sa bopp ba doo mooy yàlla ci jigéen ñi del woor wala boog daa njëkk wax ne na ngeen takk soxna la njëkk wax ku am ku mën a takk soxna nga am soxna soo ko mënul nag del ndax fa inna lahu kon koor daf ñuy jàngal ne nit ki bu xeex ak bakkanam mën na koo not ñeenteelu bind bi bu njëkkante waxtu wi ñeenteelu bind bi nga xam ne koor dañu koy jàngal mooy nit ki dafa war di takkaayoo muñ muñ itam daa bokk ci jikko yu ëpp solo bokk ci jikko yu gën a màgg bàyyi gi ngay bàyyi lekk ak naan suba ba ngoon muñ ko bàyyi mboolem bànneex yi bàyyi sax ab xuloo xeex ci weeru koor ni nga muñee yooyu boobu jéem a muñ yeneen itam da ko mën

ñetti xeeti muñ yépp muñ ci ay balaa bu ko dalee muy ay musiba muñ ci ay xéewal bu ca nekkee ba di ca jaamu yàlla waaye muñ tam ci buy jaamu yàlla coono yi jaam bi daa war a muñ ci intérêt yi ba du wor muñ ba du nangu sax ku ko ger muñ ba du lekk riba muñ baru du wax lu amut muñ itam baru du carte bari la ay musiba yo xamne ni dang ci dugg te la ko waral moy ñaka muñ am lo bëgg rek te mëno ko am amo jam muño lu nga dugg ci di ger di wor di wax lo du def mu yëpp di ay bakkar nga boole ko ñaar moy ñak ba na boole ko ci ay bakkar kon ko dala jang ni nga baye lek ak nan kat so jëmon tagatu ci baye wor baye ger baye jëw baye nangam di ko man kon muñ ci bakari muñ tam ci balaa ndax ku dund ci àdduna faaw nga yalla rek ay raw na bu fekke ab julin nga wa yentou sallallahu alaihi wasallam lim mu daan ku am bala nang ko muñ te yalla tax ndax yalla fayal aljana amna sen soxna so xana bi mi daanu ay rab jinn di ko sadd bam ñew ci yentou soxna ko ñaanal ma yentou dana ko su la nexé da nga muñ bo faatee dem aljana su la nexé nak ma ñaanal la nga wër gis nga moom ni mu daan ni mu daan nit ñi ci ñuy muñ soxna si ne ko kon naa muñ waaye nag nag ma ñaan ñaanal kon boobu ma daanante ay rab bu ma xaawi sama sama sama sama samay awra bu ma feeñ samay sama bu ma samay sér am na itam boo xam ne albuxaari génnee na ko muy xadis xudsi yi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla nee na saa yu ma nettoo sama jaam bi ci ay bëtam ci ñaari bëtam mooy ku gumba mu muñ fa laxul janna kep ku yalla to nga gumba nga muñ am nga aljanna dafa tuddu fofu gumba rek waye natou bu la yalla teg nga muñ ko rek xamal ne yalla mom du sank jëfi koy muñ innama yuwaffa sabirun ajrahum bi ghayri hisab. da koy jor yoolu kuy muñ da koy jor da du ko konte du ko natt du ko pesé day bari lol. lol lol kon ko daf ñuy jangal ne dañoo wadd muñ ndax aduna ku fi dun te do muñ ci coono ngay ci rek rek rek ngay dekk ndax ben ay musiba dina la dal yo xam do ci man dara so muñut ci ñaxtu ngay dekk ta do ko mëna a faj wala nga ñak lo am so muñut ba tay ci ñeetaate rek ngay dekk ak stress ba tay ta do tax nga am loola moo tax yàlla ne istainu bi sobri wa sola si nga jiital muñ sa la jiital do ko wax sola ndax julli sax bo muñut do ko man moo istainu bi sobri wa sola dinañ dimbandiko muñ ndax moy mo leen génn ci yenn situation yi moy régler yenn problème yi kon lol koor dañ koy jangal juróomeelu bind bo xam ne koor dañ koy jangal moy l'islam dañu jangal ne kat mom, dafa bëgg organiser mbir l'islam bëggut jifi ashwa'i yi jifi lambatu ak jifi euh talakh talakh l'islam bëggul loolu l'islam lim bëgg moy lepp nit ki def mu xereñe ba nopi tek ko ci yoon organiser ko organiser ko lolou motax sax jaama yalla yi muy digal yep mu dal ko waxtu bu ko neexee man na rek yooyu dal julit bi bis yu la neex man nga ko wor ci at waye nit ngir bëgg ñu noso taxna ba mu sakk wenn weer na dinañ ko andano yeen ñep di worando nga xam julit bi nek Afrique ak ka nek Asie ak ka nek amerique ñep a worando kon lissa mi ngi jangal fofu organisation waxtu xëdd mu wutal ko waxtu waxtu dog mu wutal ko waxtu te jaamu yàlla yépp noonu la demee ah julli da ko wutal waxtu alal mu'miniina kitaaban mawquuta azaka mu wutal ko waxtu waatu xaq yowma xasaadi aj màkk mu wutal ko waxtu alxajju ashhurul maalumaat mboolem xeetu jaamu yàlla yépp yàlla da ko wutal ay waxtu ngir bëgg ñun tam suñuy mbir ñu koy organiser loolu tam koor dañ koy jàngal koor dañ koy jàngal kon organisation bobu nga xamne mom moom ne lislaam ci mboolem jàmm yalla yep yoy dañ ko wadi pratiquer diko appliquer ci mboolem suñu jëflanté buñ joxé nit ki rendez-vous bis sangam heure sangam nañ fexé ba lu metti metti metti bis bobu ak heure bobé ñu def lañ waxoon waaye jullit ñi seen manki d'organisation ak ñank fank waxtu taxna ba dañuy wax rek di sanni dañuy wax rek di sanni té lolu bokkut ak melaw julit loolu ci meloy naafeq la bokk koo xam ne isa waada axlafa loolu moom ci jikkoy naafeq la bokk kon loolu ko dañuy jàngal ne jullit dafa war di organiser ay mbiram ni nga xamee ne bu dog jotee tey loo mën a jàpp daanaka danga koy bàyyee ba dog ba noppi leneen looy def itam noonu la war a demee bu julli jotee noonu aj màkka boo amee alal nga bañ koo yeexe asaka bu jotee noonu boo amee ak nit rendez noonu soo diggee nit dara noonu soo waree dépassé alal si yoon yoonu yàlla noonu boo a jàng alxuraan noonu lépp loo war a def nga def ko ci saa si dañ daan wax ne ñu baax bu dañ daan wax ne kun ibni waxtik kun ibni waxtik mooy nekkal sa doomu jamono mooy foo toll rek la nga war def ne ca kon loolu koor dañ koy jàngal ba ci étudiant bi jàng sax war na ay leçon mu koy teel a réviser ci ci ba mu jotee bañ a bàyyi rek ba examen des ñaari ay bis mbaa weer mu doog commencé bëgg a jarandoo matière ci kanamam loolu bokkut ak njàngalam lislaam bokkut ak njàngalam lislaam juróom-benneelu point boo xam ne koor koor dañu koy jàngal mooy koor dañuy jàngal ne jamono yi ak béréb yi am na ay gënaante yoo xam ne yàlla moo ko def ci seen biir ndax weeru koor buñ ne laa am na guddi go xam ne moo gën junniy da ngay xamne kon ndeke guddi yëpp yëmuñu bu ñu laa weer woo xam ne ku ko woor xufira lahu ma taqaddam min zanbi nga xamne kon weer yëpp yëmuñu bu ñu laa akimala kat ak juli malaakam dañuy julli ci ñay xëdd nga xamne kon ndeke lek ñël ci waxtu ko tudde ko xëdd bokkut ak rek wenen weer nga yeewu njël rek di lekk bokkuñu buñ la wor arafa ku ko def ñu jëgale sa bàkkaari at ma nga weesu ak may ñëw da xam ne bis boobu am na lu mu jagoo loo xam ne yenn bis yi amuñu ko ñu ne la Ashura itam nga woor ko dañuy jëgal sa bàkkaari at ma weesu tey nga xam ne bis yemuñu jàkkay Màkka ñu ne la boo fa jullee benn rakka da ngay am tiyaabee ku julli téeméeri junni rakka ci feneen fu dul moom kon ba tey place yi yemuñu ba ci yonante sax tilka rusulu fadalnaa ba'dahum alaa ba'din la yàlla wax da leen a ñoom sax yemuñu ñoom yonante alayhi wassalatu wassalam kon fofu ko dañu jangal ne ko dañu jangal ne yalla dafa bari ay ngeeneel waye def ay ngeeneelam ci bis yi def ko ci jamono yi def ko sax ci nit ñi loolu nak Limle yow bo xamé lim lay lim lay lim lay lim lay jariñ moy ngay fexé di mango yoy gaaw di ci profito bu ñëwee bu ñu guddigi moko jinné moo nga fexé ba guddiga mom même bu doon ñaari la naa koy ma ba duma raw bu ñu laa jumaa ja boo fa jullee benn rakka da nga am tiyabe ko julli jinni téme jinni rakka no ma def ba dem julli jifa nang ko def kon loolu la koor di jàngale day wone valeur yi am ci jamono yi ak ci place yi te lépp di nga nelul yàlla subhanahu wa taala te loolu ay nafa nafaxaat la yo xam yàlla da koy tour jam ni leg leg ci mbaaxam ak ci yërmandeem mom la yonent sax don don wax fi ma maanaa ala inna li rabbikum fi ayami dahrikum lanafahat ala fata'aradu laha yalla amna jamono jo xam fay teub ay mayam ay mbaaxam di ko na ngeen ci profito kon julit bi wudd yoyu Yoyo. koori ngàtte nga yoyu ak bis yu Yoyo, yoyu ak place yi nga dafa baax a jëf ay jaamu yalla julit bor koy sàggane ndax dundu gi dafa gàtt dundu gi li nga solo ci aw yu dundu gi mënu ko matale kon bo mané fexé ba am ay jëf yo xam dañ koy ful nga def ben jëf rek ñu ful ko lu bari loo ko nga góorgóorlu ci loolu dañ koy jangal waaye tam nag jaamu yàlla yi ni mu amee solo ci bis yu mel noonu ak place yu mel noonu lan la ca mooy yàlla rëye te loolu borom xam-xam yi daanaka xaw nañ ci dëppoo ne weeru mel ne weeru koor boo ci jaamoo yàlla ni muy rëyee ni koy fule ba tey boo ci mooyee yàlla noonu la bàkkaar bi gën a rëyee kon jaam bi ne bàyyi xel yenn place yi boo gisee màkka xorom ba yàlla wax ne képp ku fi dugg di jalgate dinaa ko mosal sama mbugal place baa tax place kon loolu koor da koy jàngale juróom mbenneelu point wala juróom ñaareelu point bi nga xam ne koor dañu koy jàngal ba tey mooy dafay jàngale ne nit ki saa yu juumee ba def njuumte da ko war a corriger ci saasi xam nga léeg-léeg nga gis ñaaru ñu am problème fekk la ko waral mooy dañoo am njuumte bu ndaw te corriger wuñ ko ba njuumte ba mujj màgg jur ay njuumte yeneen wala ay mafahim yeneen rawatina sax ci ñaari way dencante léegi léeg nit ak soxnaam am ay juyoo yu mag benn bis rek ñu am problème bu mag ba xaw a jàppante te la ko waral moom mooy dañoo am njumte bu ndaw bu amoon corrigé wuñ ko beneen njumte bu ñëw tegu ca kawam corrigé wuñ ñu dema dem nag ba day xëy xëy rek kenn daal di expressé daal daal di infayaar ci kaw morom ji koor nag daf ñuy jàngale ne njumte boo ko defee da nga ko war a corrigé saa si loolu fi ñu ko koor di jàngale mooy ci mazhabu Maalik da lay wax ne la boo juumee ba lekk mbaa nga naan mbaa nga def li doog koor da ngay woor ab bis fay bis boobee da kon continuer ba nag fay bu fekkee da nga dox ko tey nag moom dañuy alamaan da ngay woor ñaari weer yu tegaloo mbaa nga leela juróom-benn fukki miskin kon ak jaamu yàlla nga doon def def ci njuumte ñu tegal la yeneen jaamu yàlla yu gën a bari ngir nga corriger ko njuumte bi boo julli itam nga yokk mbaa nga wàññi da ngay sujjóot xabla wa salaam wala baada salaam loola di firi hadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi ko Abu Zar وخونا أبو زر نكو اتق الله حيثما كنت واتبع الحسنة السيئة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن دير داك يالا فو مانا نيك تاي تام سا يو ديفي اب سيئة مولو نياو لو بون غاوال ديف لو باخ غاو تمحوها موكاي افاسي داي ميل غوم سو بيندي با نوبي تاغا بين نيك نيوم داغا افاسي كون كور كفاره يي ني سانت ak boo dogee te teyoo ko ñu ne da ngay fay bis yooyu koor da bëgg a jàngal ne même boo defee njuumte feneen fu ci weeru koor it war ngaa def leneen loo ko remplacer am na kilifa gu mag ku dëkk ci Touba goo ko waxoon fii ñu bari danañ ko xam benn bi mu toogee ci bérébam ba bis mu juum ba wax lu niroo ko saaga def na ko mbubb mi nga soloon bi ngay saaga képp day demal nga summi ko dem ca marché ba jaay ko sarxe njëg ga soo ñëwee dem ca garab gee def istixfaar téeméer yoon wala soo ko mënut bay boo nga dem ma dem kafaara la mu ngi koy jàngale saa yoo defee njuumte war ngaa gaaw corriger ko comme ni ko koor di jàngalee te alxuraan moo ko njëkk wax a wax innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat boo defee lu bon gaawal def lu baax koor dañ koy jàngal kon kon boo juumoon tey jii ba xaw a yéex a julli waxtu julli góorgóorlu booba jullee ba dem nga teg ca ñaari rakkaa la ngir effacé bàkkaar boobu nga defoon boo juumee ba saaga nit góorgóorlu ba dem feneen tagg ko fa mbaa nga jéggalu ko mbaa nga defal ko lu baax ngir ko di sa njuumte boobee boo juumee ba di jàng ba échec ci benn matière ba jàlloo ca góor góorgóorlu ba yeneen matière a nga fexe ca am na yu baax ndax mën laa jàllal boo juumee ba say bët xool lu xaraam mbaa soo làmmiñ tudd lu ba def leneen ca làmmiñ wa mbaa ca bët ya ngir mën a ko suñ jumte yooyu loolu kon dañ koy jàngal pour tënk juróom-ñetteelu tomb boo xam ne koor dañ koy jàngal mooy dañu jàngal ne jullit yi dañoo war a bennoo boole seen bopp yàlla dig na ko ci alxuraan ci ay bërëb yu bare ci ñuy bennoo digal gi ñu digal ñu woorandoo wenn weer wu tudd ramadaan loolu ab joxañ la bu ajjuma jotee ñu yebal ñu dem ca jumaa ja ñun ñëpp loolu ba tey ab joxañ la julli juróom ñu digoon ñu dem ci jàkka ji ñun ñëpp loolu beneen joxañ la xaj màkk ñu def ko ci benn place ñun ñëpp julli ayit ci benn place lépp ay joxañ la yu ne yu joxañ ne dañoo war di mànkoo di xàccandoo di dóorandoo di bennoo te bañ a def safaan ba te mooy féewooloo ndax suñ ko defee dañuy néew doole wala tanaza'u fa tafshalu wa tazhaba rihukum kon jullit ak mbokkum jullitam ni ko doon ni ko ni ko doon jàngalee mooy kal bunyaan la war a doon dañoo war a ràbbaloo comme ni ay birig ci miir di ràbbaloo yashuddu ba'duhum ba'da kon loolu weeru koor dañu koy jàngal ndax digal gi ñu digal ñuy woorandoo wenn weer ñu ñëpp bokk heure bu ñuy dog te mooy waxtu timis ba mu ko waxee saxaaba yi nag ah yow kat da nga koy def yow ko da ngay def misaal yow it mu ne len man kat bokkuma ak yeen ndax man yalla daf may leel dima mandal hadith bo xamne bukhari ne Buxaari Muslim ñëpp génne nañ ko amna at bo xamne dafa jokkale kooram mom yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam nga yonente bi ay jagle yo xamne mom nak nag la ko yàlla jagleel dafa jokkale kooram dogut sahaba yi di ko top ko ca bis ba ca top mu jokkale waat kooku dogut sahaba yi top ko ca mu jokkale waat kooku dogut ba ca ngon sa weeroo feñ mu daana bu weeru continué woon fee ñu day damay jokkale rek jokkale ba ma xam ne du seen moroom du ma seen ba ngeen xam ne du seen moroom la ma ko jàngale mooy jullit bi dafa am yàlla digal te mooy koor mi ngi tàmbalee waxtu fajar ba jant soo bu jant soo la ma digal mooy lekkal wa kulu washrabu xatta yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xayril aswadi kon bul ëppal ba ne man man xiifuma maruma kon boo doog jant ma def naa kon ba suba ni nga koy defee ci koor tam bu ko def ci julli yàlla du la wax ñeenti raaka nga naa julli juróom ndax damaa sawar mbaa yàlla na jàngal faatiha benn yoon nga ne ah faatiha kay ni mu baaxee man ak ni ma ko mokkale naa ko jàng ñetti yoon ci julli gi lislaam dafa bëgg lépp lu diggal nga yam ca wala lépp la yokk itam na yokk ba am cosaan na yokk ba am cosaan loolu koor dañu koy jàngal juróom-ñeenteel boo xam ne bokk na ci bind yi koor di jàngal moy ñu xam metit wi nek ci xif waye xam xewal gi nek ci lek ak naan na am na ñoo xam ne yàlla man na ne leen jamono ba bu dul woon koora man na am duñ yëg metitu xif du yëg itam metitu mar waye bo wooree ni ngay xif ak ni ngay mar ak bu ne ba dog jot ni ko tan waxe li so ami farhatani su bo demee ba dog dess ñetti minute ñent dess ba dog jot ba ngay dog ni ngay bégé ci xewal ya loolu bu ci sa xel demee nga bayyi xel ñi nga xamné xeyna buñ na tay ñu añee tey ñu reer mbaa bu ñu añ kon da nga man da nga leen dimbali bu baax nga bayyi xel itam yalla ni mu soññee ci def sa alal ci yoonu yalla ak jox ñam ko xif kon loolu koor dañ koy jangal loolu motax am ci hadith bo xamné ne yonent xam képp ku dox ndogo ku wor am na koor nga taru yàq ci tuyaabay mom mo waron dara loolu mi ngi soñ ci ñuy geesu ñu néew doole ba ci muurum koor sax boo wooree ba wooree sax mën a joxal muurum koor ñi nga xam ne dañoo néew doole ba bisub kore bi nga xam ne bisub feet la ñëpp dañoo toog seen kër bég duñ mën a duñ duñ génn di laaj di yalwaani kon loolu koor dañu koy jàngale ba tey waaw fukkeelu bind boo xam ne koor dañu koy jàngal moo def ñu jàngal ne lu baax nekk du doy bu kenn am lu baax ba di ko yéem ni ko Sëñ Tuubaa dénkaane woon mag ñi lu baax du doy ne woon na euh, ñetti dara ñetti dara loon dénkaane ne alaaxira dara du fa doy ci lu baax waaye dara lu bon ëpp na faa yóbbu yàlla suñu borom itam ko xam ci moom dara lu muy ter doo ci def dara ndax azizu la di muntaqim te saa yu xàccee ab yaram ba jëme ko ci ab jaamam kenn sañ caa jàpp jullit bi daa war a xam ne lu baax du doy bul def ak jaamu yàlla mukk ba mu rëy ci yow ba nga di ko yéem te weeru ko da lay jàngal loolu yow yaa wor woor weeru koor boole xiif ak mar ñu ne déete waaye ñu ne la moo ne boo doon jàng alxuraan de lay gën a baax nga wor ba dog ñu ne la moo ne boo boo doon taraaweex de julli taraaweex lu bari ay ngëneel la nga ne déet ñu ne la am na guddi gu ci nekk goo xam ne moo gën junni weer boo ko boo ko taxawoon de te guddi googu ci fukki fan yi mujjee nekk dee ko dee ko ca dàq kon fukki fan yëpp da nga war di jóg di ko lamb di ko ci farlu nga woor ba war a ñu ne la boo génnee mburum koor day dana gën a baaxal sa koor gi nga ne ah ñu ne la xëdd xëdd itam lu am jariñ la ñam mu barke la boo xam ne ak taamul mubaarak la ko alxadaa al mubaarak la ko yonent doon tuddee wax ne yàlla dafay julli ci ñuy xëdd kon yooyu ay jaamu yàlla yoo xam ne ci weeru koor lay am lu mel ne umra yonent bi nee na képp ku umra ci weeru koor dafa mel ne dafa aj ànd ak man kon loolu lañ ci war a jàng yow bi mooy ndekk kon lu baax du doy kon ndeke weeru koor rek woor ko doyut ndax su fekkoon lu baax dina doy koor gi nga xam ne yàlla nee na man yàlla maa koy fayal sama bopp wax ne sàkk naa ab bunt ci àjj na bu tudd rayyaan boo xam ne ñey woor rek ñoo fa daan tàbbi bu fekkoon lu baax dina doy kon boo weeree weeru boo wooree weeru koor dong mën nga caa yam waaye teew ñu ne la deel naafila deel jàng alquran deel boo mënee umra ji deel umra ji génneel murum koor del saraxe yépp ci biir weeru koor kon say julli lu mu bari bari bu ko yéem koo dala koy jàngal li nga xaji màkk lu mu bari bari bu ko yéem li nga omra lu mu bari bari bu ko yéem li nga sarax ay nit mbaa nga tabax ko ci ay daara mbaa nga tabax ko ci école mbaa ci jàkka lu mu bari bari bu ko yéem lu mu bari bari bu ko yéem ndax ginnaaw ginnaaw ki faatu ci yoonu yàlla nga xam ne daanaka jaamu yàlla goo xam ne ñu ko féete koo bariwul koko yalla yonto sa nee mom mo moo gën a bëgg dellusi ci aduna ngir bëgg ñu raar ko ci yoon yalla euh, mu faatuwaat kon keneen mënta wax keneen mënta wax kon lu baax du doy lolu ko dañ koy jangal ko dañu jangal tam fukkeelu bind bi ak ben wala fukkeelu ben ñaar dañu jangal ne euh, moy yalla yi dañ ko di nak lolou fiñ ko koor di jàngale mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu naan ku woor ci yéen am ku ñëw di ko cokkaas di ko tàppaas bëgg a xuloo moom ba bu xeex bëgg a xeex ak moom na ko wax na ko inni saim ñaari yoon na man damaa woor man te lu ma xuloo damaa woor loolu lañ tey dégg mooy koor nim lay fegale ba doo xuloo doo xeex non la la yeneen jaamu yàlla yo tam war a fegale xuloo xeex war la ko fegale yeneen mooy yàlla yépp comme jaam ya mooy mooy yàlla gu ñëw rek ma yalla bu ñew war nga am loko ko défendre loko ko protéger ba du agsi ci yow lolu koor dañ koy jangal kon lolu ay bind la yo xamne yépp mas na ko ci école bi tuddu wéru koor bi ci mujj itam moom mooy ay cër ni ngay sàmmee say cër nga xam ne yonent sa daa wax ne man lam yada qawla duuri wal amala bi fa laysa lillahi xaaja fi an yada taamahu wa sharaba koo xam ne bàyyiwut wax ju ñaaw ak di ko def ci weeru koor yàlla amul soxla ci xiifam boobee ak maram googee foofu da nga weer a jànge ne kon def lu baax dong dong dong doyut waaye dañ caa war a booyal nag bàyyi ay bàkkaar ndax def li yàlla digal dong moom doyut dañ caa war a boole bàyyi li yàlla tere suñu maam aadama li ko alag mooy dañ ko am euh, wala bokk li ko yóbbee musiba nattu ba mooy dañ ko tere woon mu def bu lekk mu lekk nga bàyyi xel ne aadama gannaaw ab yonante la te moom mooy mbindeef mi yàlla njëkk a sàkk moom mooy tooñ yàlla yàlla di ko mbugale lii kon keneen moom mu ta wax kon koor dafay jàngal nit ki daa war a sàmm ay cëram booy jaamu yàlla itam day sàmm ay cër waaye di jàmm yàlla di julli lu bare di woor di jàng alxuraan te foo toll yaa ngi jëw nit ñi foo toll yaa ngi rambaaj foo toll yaa ngi iñaana ay nit foo toll yaa ngi lor nit ñi say làmmiñ mbaa sey jëf loolu ëpp nay def loolu day yàq ay jàmm yàlla loolu da yàq ay jàmm yàlla kon bind yi lañu waajaloon mel na ne waxtu wi jege na te du ñàkk xëy na am ay laaj yoo xam ne dana ñëw ci biir waxtaan wi euh, mooy kon li ñu waajaloon mu aju ci weeru koor dañuy jàngal muy ay bind yoo xam ne ni ma ko waxe woon jullit bi mën na ci xalaat sax yeneen yoo xam ne bokkut ak yi ñu wax ay bind bind bind yu bari yoo ne bokkut ak yi ñu wax nit ki mën na ko cee xalaate waaye yëmul rek ci weeru koor yen yeneen jaamu yàlla goo dugg danga jële ay bind yoo mën a jariñoo ci leneen kon julit yàlla ko bind may ko am xel bëgg muy xalaat yàlla dafa bëgg julit bi di xalaat jëfandikoo am xelal wax ne dama bind doomu aadama ba noppi hadaynaahu sabil dama ko wan yoon may ko xel dama ko wan yoon may ko xel li am nak moy imma shakina wa imma kafura moy ben mu jëfandikoo xel mi ma bañ ko jëfandikoo rek kon julit bi lépp lo xamne xewna xew ja war jële ab bind ba mu mën a yóbbaloo te bañ a rek ci weeru koor ñëw mu weer woor ba weeru jeex rek mu dellu ci oman yi nam ba weeru koor ñëwaat déwén loolu taxul ñuy wax koor yàlla yàlla may ñu dégg ak topp te nangul ñu may ñuy fekke weeru koor at yu bari te yàlla nangul ñu mboolem jàmm yàlla yépp te musal ñu ci mboolem rëcc rëcc yépp lépp lu dëng ci wax ji ñoo ngi koy jéggulu lu ci jub ci yàlla la subhanahu wa taala delluwaat di sant bu baax a baax waa mu assasa bi ak mbolam ñi koy taxawé ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الرحمن سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيغي لين دي نويو دي لين دوكل سي ويرو زيار سيد محمد جان سي مؤسسه الوفاء بحقوق الايمان ñu ngi lay sant bu baax ci tomb bi nga xam ne moom nga ñu jàngal te mooy ramadan yu àllimuna ay bind yu bees sàq yoo xamante ni dañ koo jëlee ci weeru koor ñu ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyil ak sam xel mu assasa bi yépp sant nañ la gërëm la waxtaan wi teewlu gu ko bokk yi teewlu tax na laaj firndeel na xatu waxtu wi tax segg ci benn rek wala ñaar ndax waxtu wi moo xat lool ki dafay jàngal mu ni dafa laaj mu ni koor nag lum euh, maanaam lanuy defaral suñuy bakkan koor naka la ñuy defarale suñuy bakkan nu ñuy def itam sax ci lim nu lim def ci nun ba bu koor gi jeexet duñ fexe ba loolu génnaat ci nun